te xam li ci ne. te nanguwuñu koo wax ñooñu la ñu war a laaj lu xew. Eh, père yow ci làmb nga bokk. dégg non loolu li may wax bàyyi li may wax nii damaa bëgg mu leer. ayca bisimilah. yéen ñii di wane caméra yi. Mhm. di ko jàllale muy dem. Mhm. xam ngeen li xew ci làmb ji. fa ñu teg groupe ba. Mhm. ak nañu koy doxalee xam ngeen ko. lu leen ko teree wax yéen. da ngeen koy ragal wax bu ëllëgee ñu tee ci làmb ji. wax da da nga da nga ñu sanctionné la. ménagères yi xam it ñu nañu la ca xew. déet. Eh? xaaral ma ñëw même rek. même ñëw ko bala ngay avancé. waaw defe naa defe naa moom mu leeral ma ko moom. lu tax mu leeral may nga ma ñëw. Hmm. xam nga tamit buur leeral na ma. te yow nee nga ma léegi. démb gars yi jox nañu nangam ci essence. démb waaw. ak tey ak tey. ñu tënk yëf ya bañ koo taal. alalu ndey ñu bañ koo taal. lu jaral li jëntee ngi noonu nag. tey non grand may ma ñu bàyyi ma eggal bàyyi ma eggal. may li jaral li jënti la. Mm. Ah, ndax cinquante mille tëgg sa làmb woo mbooloo ñu la groupe bi kat nangam nga ma koy taal ci essence nga joxe cinquante mille ñu jël essence heure làmb ji jot làmb euh, làmb ji de patous ana ñooña fu ñu ne lan moo la fa teg ana essence bi ñu jënd fu mu ne lu tax joxe na jënd nañu ko wala jënduñu ko wala affaire banditisme moo nekk ci biir arène bi loolu lay ñu róol loolu lay ñu róol léegi nag damay laaj arène bi dañ ko tabax noonu mu doon xott woo xam ne dañ ko tabax rawa ci ko mu ne wóolu noonu kenn géré ko loolu moo fi ne wala lan moo fi ne loolu nag yën enregistré ko jàll ko ci internet bi ñëpp dégg ko làmb ci biir arène bi am na banditisme bu ne li ci ne mooy ñu jox groupe bi ñu war ñu di la jox ñu ko essence te duñ ko taal lan moo waral ñu ko. ministre bi da ko war a yëg. ministre bi da koo war a yëg te bu ko ministre bi yëgee faj ko mais ministre bi yëgu ko. yëgu ko nag. waaw léegi lan moo tere ñu koy taal. non dama coupé amu ca lan moo ko tere tàkk. laay laaj ah lu ko tere tàkk borom essence bi moom et puis promoteur bi amul fayda man su ma joxe sama fukki junni te taaluñu ah, kii ba laa ma jeex da ngeen may delloo sama xaalis da ngeen may delloo sama xaalis loolu muy dëgg loolu muy dëgg damay woo ministre des sports mm-hmm. am na lu nu yëg ci làmb ji loo xam ne yëguñu ko promoteur bi ñuy wax fay mhm. démb làmbam tëgg nañu ko te lumière amul ci arrêt exact mhm. oh, mbër yi dañoo bëre ba bëre ci lëndëm kan moo bëri grand combat euh, Ahmed Dem moo ko bëre ak Gabar Sène mhm. promoteur bi woo na ma joxe na juróomi junni pour gasoil te taxul làmp yi tax fii ma toog tey fekk naa fi promoteur bu ñuy wax moor moor jàmbaar ñoom jënd nañ cent et quelques litres. cent trente mille jàmbaar production. Euh, jàmbaar production. deux diggante soq ak franc. Mhm. ministre bu fekkee yëguloo ko. Mhm. dañu bëgg nga bàyyi sa xel ci arène nationale. Mhm. ñun yow lañuy dimbali li fay xew. war nga xam lan la lan moo xew ba tax dimanche yu jot lamp yi du tàkk ak ñuy laaj gasoil ay cent trente mille ak trente mille te kon te quartier bi mm. coupé loolu la ñu bëgg yow ministre des sports nga gëstu ko stade bi rek mooy coupé ñu xam lan moo indi loolu mm. pour làmb ji mën a tegu ci yoon mm. parce que kat lii xew fan yi ñu koy seetlu te yow euh, arène bi nekkul ci loxo CNG ci sa loxo la nekk mën na indi violence boo xamante ne ëllëg xamuloo fu muy mujjee ci kon bokk monsieur le ministre des sports ñu ngi lay wax ni la ñun ñoo ngi ci làmb ji lu fa xew bu ñu ko yëgee danañ fexe ba nga jot ci nga gëstu loolu ñu ngi lay gërëm Père de Gaulle Père lu muy wax. Ah. man muy maa lu may wax. Ah, merci na leer. waaw waaw. am solo mooy. Mhm. lamb ji ay milliards lañ ko def lañ ko defaree. Mhm. groupe lañ fa def. Mhm. groupe boobu dañu ni ku joxe nangam taal ko. ku joxe nangam taal ko la ñu wax. comme ku joxe nangam taal ko la nag. ñiy joxe te seen lamb. courant bu coupé bi war a marche te duñu taal groupe bi. lamb ji ne patuus hmm. crime mën na fa am gaañu mën na fa am ña ngi teg ci group ba ñu hmm. war di taal te taaluñu ana luy ndey loolu mais Père Mansour est-ce que stade bu mel ne arène nationale war nañ faa taal groupe te yi war a mën a taal non dañ ko non non non dafa naag hmm. yi bu fekkee ne courant tàkkul lañ moo tax ñuy wax mais groupe moom réserve la réserve dafa war am en cas de pépin ndax àdduna moo tax dafa war a am groupe mais même bu fekkee ne courant bi tàkkul lan moo tax ñooñu ne foofu yor groupe bi di laaj obligatoire ñuy laaj njëgu essence te ba pare CNG baa ngi yëg ni ñoo ñoo ngi laaj njëgu essence te bu ñu laajee njëgu essence courant bi ab du ñu taal lu luy ndey loolu ka télé bi ci kaw lan moo waral duñ ko taal écran géant bi lan moo tax duñ ko taal waaw mais arène bi ar ar non ga yàquwul non non non non non non non yàquwul arène bi mënuñu ko defee barki dem moo njaay dafa yàqu non ñu defar ko ñu defar ko ñu defar ko ay milliards lañ ko defaree ay arène bi dama ni wa dëgg neexul dama ni caay caay gi la ñu war a arrêté bu ñu indi affaire africain yaa ngi dégg groupe bi dañu ne dañ koy taal ki koy taal ñaari nit la wala ñetti ñu ñoo fa ne bëgg a taxawal mafia boo xam ne si dañuy laaj xaalis pour jënd essence du jënd dara loolu moo tegul ci yoon ministre bu su fekkee ne yëgu yëgu ko nañ ko ko yëgal nañ ko ko yëgal CNG bi du fekkee ne yëguñu ko nañ leen ko yëgal promoteur bi bu ñu ko yëgee kon nag deal la kon